wax ci li nga xam ne moom mooy problème mu supporter yi ak ak ak bi et et tout loolu ban jàngat nga ci am ak ban message message surtout lañ leen di lancé parce que image yu Sénégal la ñuy la ñuy la ñuy doxantoo fi mu toll nii ñu ci def rek Sénégal yëpp lay lay lay lay moo koy aakimoo donc yow ban message ak ban jàngat nga am ci situation boobu. man dama mënul comprendre ah li dox ci diggante douzième gaynde ak Allé Casa mënuma ko comprendre parce que mënuñu ne ñoom ñëpp équipe nationale la ñuy supporter. ba pare ñu war am benn benn rivalité bi wala benn divergence bi te je pense que benn dénominateur commun la ñu am mooy Sénégal un peuple un but une fois bu fekkee ñun ñëpp ñoo bokk ku ñuy supporter bokk lu nga xam ne moom la ñu bëgg muy équipe bi am ndam war nañu bëgg boole suñu xol yi mais tey divergence bi dem na ba egg ci niveau insoupçonné ba tey même la fédération bi leen doon subventionné ku nekk 10 millions téye na loxoom tey dafa am problème pourquoi. yombalu luñ ko liggéeyam ko liggéeyam tey douzième gaynde ak Ale Casa war nañu mën a bokk benn benn support benn benn benn tribune supporter l' équipe mais qu'est-ce que tu vois euh, Ale Casa dañuy sol seen yu verte ñii sol seen verte jaune rouge ku ñee di dóor seen rythme ñii di dóor seen rythme ku nekk di wan sa moroom ni maa la dàq a supporter alors que affaire bi nekkul foofu ñun waruñu dem ba bitim réew di wujje ci suñu biir c'est incompréhensible donc ñoom nañu xoolaat bu baax euh, seen bopp jéem a tàppe xol yi muy euh, ñaari président yi nañu xool seen bopp ñu waxtaanaat seen biir pour xam ne fii euh, ce qui les unit est plus fort que ce qui les divise ce qui les unit c'est la nation ce qui les divise c'est des intérêts crypto personnels nañu toog ci intérêt personnel yi te jiital intérêt réew mi je pense que loolu moom moo ëpp solo ko mhm. donc euh, message bi jàll na je pense que ñoom aussi dinañ ko dégg ñun ñoo bokk suñu réew mi donc te xam ne ñu taxaw saa su ne di tàccu wala di way wala di fecc pour joueurs yi yéen ñun ngeen représenté donc suñu image ngeen yor ngal la waxtaan leen ngeen trouver un terrain d'entente balaa compétition bi gën a gën a sori man damay wax man ngeen a dem quart de finale bi ou demi finale bi ou finale bi donc loolu nag il faut ngeen juboo il faut ngeen waxtaan ngeen yombalal euh, fédération bi seen liggéey donc